mbokk yi mu ngi noonu loolu ba ñu ko gisee ngeen xam ne benn cas urgence la bu am fee ca Mbour benn bâtiment la bâtiment bi euh, gis ngeen ko noonu bâtiment bu mage la bâtiment bi mën naa ne man mii di wax ak yéen sax ma mag yàlla dogal mu daano nag bi mu daanoo ci benn magasin heureusement kenn gaañuwul euh, sapor ñoo ñëw noonu di def interview ñu ngi noonu taxaw di xool ndax euh, dañuy dañuy dañuy daane dañuy daane dañuy daane dañuy daane dañuy daane bâtiment bi yeggali ko wala dañ koy dañ koy bàyyi noonu voilà muy noonu def ngeen ko ka instant fofu ci mbir wa nak yàlla def na surtout kenn blessewul kenn gaañul wax deug yàlla sante yàlla baax Buusaleen yéen buusaleen buusaleen